Ya no, ya no me canso. No, yo me canso. بسم الله الرحمن الرحيم gaaw ci ne yaa naan lan ngay gis mu mel ni daa defee nekk lan la man xam nga yow man mà man man man li may wet si yow chaque jour yaa koy def mais nga naan ak maa ma sa jongo yow kañ nga ma sa jongo ma sonal ma damay yóbbu sama taas. léegi yow jonga ma daanaka dara jaral ma. waaw gaaw damay dem man maa ko def sax. ku jonga ma wul mereel sa yaay. man mi taxaw ba xanaa man su ma xoolee sama bopp xool sama yaay damay xam ne damaa jonga ma te damaa noppal sama bopp noppal sama yaay ndax lu ma def day jekk dégg nga demal nga mereel sa yaay moo gën ngay xuloo ma. waaw ah. xuloo su. maa ngi gën a man xam nga man man sax man man damaa jombi sax ndax yow ñaata at maa yow ci kër gi musuma laa gis nga teg baraaka tay nga jik jik ñew rek naan yaa ngi may xeeli ak taaya li ni mel ni li, xaw mbay li lii askan bi li wax deug fi yàlla nañ waxante deug ba fa ah déglu ma xam nga baadoo la xamul yàlla da nga koy joowaan da nga koy joow muy joowaan yow yu mën naa ko def man nga xamantene ne damaa dugg sama way bo waroon def sama ñaari baraare naan ko ñew taxaw fi man dama lay xel ma nga naan jongo ma laaj ko yaayam waxi daf loolu waxi waxi xuruzu la dang ko mu sa def wa yow amatul attaay jox ma dara xëy xëy rek kalaam naa ku ñëw di ma jox attaay dinaa ko naan de waaye dama lay wax ne la man doomu kër biir laa mënuloo ma dara bu dee da ngaa jàpp ne nag maa yaa ngi nax sa bopp man bu ma tëddee damay nelaw ba yàndu te loo jox dinaa ko lekk dinaa ko naan waaye dinaa la xamal ne la mu soo nit man ko man ko déglu ma gis nga wax kenn ku ko soxla soxla ko da nga koy dégg. yaa ngi dégg yow ko ci boppam moo nekkul di la man maa ngi taxaw di la xëy man nga ko def ndax maa doon wax wala may dee day wax ci boppam moo doy am na kuy fan joxe na sama jaar yow am ah, wax de moo doy man naa ko def ci man mi lay xel ndax yow baadoo la la xam nga ku la xel ni man mi la xel ni nag man naa ko def waaye bu amatul bu doyal sa bëri na poobar. asalaamaaleykum. andi jang soñam jamare jamare ñank jamare de jamare ngi ngi ci tay jamare ba sonu ci yoon bi naka njabot gi ensemble mi ngi fi jamare de de ak legi fi wa gën man kay na mo na la fan yi kay na mo na ma la gën ñu dafa ak yoonu wa ñi ngi sant alhamdullilah jamare jamare kay naka njabot gi jamare alhamdullilah jamare kay alhamdullilah an sama ñu bay naka tool ñu ngi fi rek déedéet ñu ngi sant jàmm rek jàmm rek kay alhamdulilah bilaay nijaay nag nga mool nag lii lii baax na dëgg la kay bilaay dëgg la kay dëgg la kay wax dëgg yàlla ku baax la ah sama jabar bu baax na ndax dëgg yàlla à chaque fois yaa ngi yóbbante dëgg la yaa ko dëgg yàlla moom macha allah di la ñaanal rek yaa ko moom yàlla may la gudd fan ak lépp loolu la ñaanal nijaay fii dafa tàng kaay kaay ma dalal la fii fii dafa tàng dafa tàng kaay ma dalal la fii naka coono ñu ngi sant bu baax di amal jaamale kay alhamdulilah jaamale kay sama dafa xaw a gudd de waaw xaw na gudd nag ay ñëwal ma la la def ci moo gën a féer tali moom daa tànn dëgg la kay dëgg la kay dëgg la koo comprendre dëgg la kay ñu koy yem kan suñu dëgg la kay tooga ñu ngi sant déedéet jaamare saw di la naka njaboot ay ni jaay sonal naa la de ay amul benn problème amul benn problème wax kamu. yàlla jaral nga moom jarbaat bu baax la wax dëgg yàlla allah maa ngi lay ñaanal rek fu mu toll daal Amin di la ñaanal rek yàlla may la gudd fan may la wér loolu laa la ñaanal amin amin amin amin in ma yóbbul sa yére bi ki nga yaa nga mën a toog noppal bu baax dafa xaw a tàng de waaw in ma yóbbul la yére bi ma ñëw toog ñu waxtaan nag yaa alhamdulillah yaa ma naka ñu ngi sant bu baax jàmm arikal mm. ci jàmm waaw mi ci mi ngi sant de xam naa moom tey dina kontaan moom la gisee dina kontaan de waa kay ma ñëw waa kay arikal seen dëkk na fii de moom tàng na lool lool lool lool lool lool wuti naa suñu dëkk bee mu sedde moom tàng trop mag moom mag moom yaramam day gaaw moom bu jëmee mag moom yaramam day gaaw tàng. Mm-hmm. Dinaa yaa ngi toog waaw maa ngi toog waaw. maa toog waaw fii de moom. waaw tey de mu dafa tàng xaw ma seen dëkk bee tàng. xaw ma ah, waaye fii de moom tàng bu tawee mu sedd. Oh, moo tax gisoo wér jafe. yàlla xam nga ñun ñi moom ñu yenn tàngoor yi. ñu mu ñu kay loolu ma doon jërëjëf baax na baax na baax na baax na jërëjëf. xaaral ma doon indi fu ma toog. jërëjëf waxtaan. Mhm. <laughs> dama laa namoon nag. Ah, namoon naa la namoon naa la trop sax namoon naa la trop billaay namoon naa la trop. alhamdulilah oh maam bu baax la. Mamang maa sonal de. ah deh. deh, dia deh. ngi lay sonal nag. man kay maa la sonal sama nga sonn nga trop. man mii kay maa la sonal. sonn nga lool so. maa la sonal de. da Anak rek fu ma Amin. ah amiin ñaanal rek amiin moom bu yaroo baax dal ànd ak tey moom loo yóotu da nga koy jot waaye nag góorgóorlu rek. waaw incha allah rek sëy. incha allah te sëy moom muñ la rek. dëgg la moom yàlla baax na ci ne. waaye nag da ngay da ngay nangoo muñ rek. la ci yaamu yàlla bokk ku la gën a mën a muñ rek ah, moo la ëpp ci ci yàlla waaw ah, moo tax ah, yàlla yàlla baax na boo ci allah boo ci amee doom <laughs> yàlla sa doom na ko yaay seydina Muhammad wa looloo ñu war ndax li ngeen ñu yore yare woon démb mm-hmm. ba léegi jóge fi waaw amuñu benn yoon mm-hmm. droit def na ko sunu noonu te bu koy def tam dinaa leen xalaat ndax jii bu ngeen ma fekkee si may sëyee nag suñu noonu waaw kon dama leen di ruus nii te yara bu leen waaw kon yéen laay sant bu baax ndax la ngeen defoon ci man ba léegi wax dëgg ci yàlla maa ngi koy wax dëgg yàlla occasion la bu mag ci man ndaxte yaay sama kilifa te ba digga fan yëpp maa ngi lay xalaat ci loolu suñu kër gi nag fan nii moom dafa bari coow ah, bari na coow lool waaw te su ma sañoon nag diñ ci def loo mën loo mën daal nga def ko ci ah. xam nga jaboon moom jàmm mooy mbokkam ah coow de moom baaxul ci kër coow moom bu juddoo ci kër kër lay tas te kër moom jàmm moo ci gën ay nit bu ñu nekkee ci kër mhm. nañu ànd bokk ndey mhm. bokk baay juboo doon benn loolu moo am solo waaye kër bu commencé am coowoo rek mhm. ah, bu yàggee rek di ngeen tasoo loolu moom loolu rek laa lay wax waaw te incha allah danañ ci def ñaan. danañ ci def ñaan incha allah. waaw sama wujj bi moom jotoo ko woon a xam. déedéet xaw ma ko léegi dama koy woo mu ñëw nag ngeen xamante. Ah, waaw kon kon sa wujj bi. kan la kër gi ñëw na. xaw ma ko. ñëw bi dañoo deful woon dara. waxuñu ko kenn dañ kaa muur rek mu ñëw dugg néegam. kon loolu la xam naa da leen a bett yooyu. waaw defuñu dara defuñu dara danaa ko yëg. waaw defuñu dara kay. defuñu dara moo tax waxuñu ko kenn. waaw incha allah woo ko woo ko woo ko mu ñëwee ñu def ñaan incha